étant jeune nii sax laa bëgg man bëgguma Wally musique ba ba ba nekk màgget ndax waaye dama am yéene ci moom. pare mais yu bëri na ñëw nañ daan da nga jum ci waaye tolloo foo xamante yow nit ñi nag ñu bàyyi nit ñi xam lu ñu wut chaque jour nga dañ lay poussé ak a à à ce que nga dem ci seytaane. Wally war a liggéey waaye man yàlla naa bàyyi suba sax am lu ma gën a bàyyi suba man nga xam. man li nekk sama xol bi maa xam man ñu doole ko wax ñu may sax yàqal tënk nga tam bëgg bàyyi sax ñu yóbbu la seen gën la pousser seytaane nit ñi nit ñi nit ñi am nañu ci d'accord woon bu ñu d'accord dama dama wax ñoom man Wally laay waxal ma may waxal moom la ne moom xam na ko te xam naa ban nit am loo xam saa waay boo amee lu ko gën da nga ko fi teg dem dem seet la lan mooy ay way dëgg la yaa ngi musique yaa ngi way yàlla nga lay teral nga jot yaa ngi koy ko mais boo amee lu gën loolu dañ ko dem def yi Wally ñaan na yàlla tey jii tout yi yëpp nekk ci leneen dañ waxante dëgg nit ñi nag du ma xool ma lu leen neex yooyu de boo xoolee lu nekk doomu aadama yi ah, naa ah, fekk nga doon xool ci ay kàcc ngay dëkk yaa ngi dégg nit ñi nañ ko ñaanal yàlla yàlla jàppale ko mu ngi dimbali doomu aadama yi lu mu am nañ koy bokk nit nit ku baax la nit ñi nag xam ne ñuy bañ Sénégal jël fi pay moo metti jël daal sax gën jël pay ndax boo jëlee daal duñ la bàyyi xel kenn dootu la waaye jël fi pay xool yet yeeg xeer yeeg puso yeeg paaka yeeg bomb yeeg pompe à gaz yi yëpp sa kaw la jëm. keroog noo noo gisee euh, Allemagne Pologne. Ah. ay nasaraan daal def festival woo ko mu ñëw euh, euh, way ci keroog bu nga gisee loolu naka la def. mu dem Pologne rek këpp leen laj Cologne daa dem Pologne këpp leen laj Cologne. keroog bi mu woy yaayam tamit keroog. te bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoo ko teewoo nee nañ nasaraan sax xamuñu lu muy lu muy way mais ñun dañoo tuur xewal ndax ni mu woyee yaayam keroog. xool ba. xolam na ko yàlla lay fay xam nga nasaraan xamuñu ne ñooy waaw rek li jooy xol ba la nit xol dafa am ñoo xam dañoo mën a tricher di di rafet rafet lu xol fekk seen xol yeeg raw këriñu këriñu pa pa ma nekk xam dafa am ñoo xam ne saa waay de yàlla xol lay fay waaye lii mu am nii ak bu xoola xale bu ndaw la yàlla la président 44 ans fan kañ ko Moussa yàlla la dafa am ñoo xam da ngay gëm ne yàlla la nga noppalu ko. waxuma la Allemagne dina def àjjana sax toog di xaar nit ñi àjjana laa dina fa dem toog di xaar nit ñi nit ku baax balaa koo ko xam nga dem seeti ko nit la ku dal koo xam ni maanaam boo jàkkaarloog moom dangay xam ne yow ku ñu yar nga jàkkaarloog ku dal nga yar koo xam ne yëgul succès yëgul dara tey waali yow boo ko musul gis boo demee këram keneen keneen ngay jaawale waali ko waali nii ndax simplicité bi nekk ci moom. waaw waaw tax yow nga faral Wally rek yow yow tant que artiste. da nga naan tax nga nangul Wally bàyyi faral Wally nga nangul Wally. parce que daam dama soirée benn artiste bu Wally. artiste bi ma invité naa demal de mais Wally yëg gi ma yëg ki ma yëgee noonu waaye gi nga man du ma triché waay man ku ma yëg ni ma yëgee. du ma fonk ni ma fonkee fonkee ni ma ko fonkee yëgee ni ma ko yëgee. mais ñeneen ñi duñ la mere. ku mer kalaamee yàlla. fi mer dafay amul sax nit ku ne ak kañ ka nga mën a defal rek dëgg la aar nag dafa bëri ay naa fekk bëri ay ñoo xam ni dañuy wax lii def lee man ma ci loolu man du man naa fekk du ma complexé man boo ma yëgee dama am na ñoo xam tey duñ la yëg ba pare bëgg taxaw fii di kaas ak naan ci booy bi léeg booy bi léeg man doxuma man dañ may mën a ma yéeg la faale ma faale ma ma faale la boo ma yëgul demal fële man yàllaa ma yor de yàlla laa yaakaar waali mi tey bu ma yëgul woon du ma ko yëg bu ma faale woon du ma ko faale mais waali nit ku baax la nañ bàyyi donc man daal li ma jaaxal mooy topp benn rek yow koo xam tey Sénégal la comme yow nga war koo jàppale war koo pousse war koo dooleel comme yeneen dëkk yi nii def man waali boo ko Sénégal ba mu nekk gis ma da koo gën Michael Jackson daa nga naan Michael Jackson loolu la nga wax noonu. damay laajte rek mu ngi laajte. Michael Jackson man de Michael Jackson daa doon gis rek ko mu am jàmmam am waaye lu mu bëgg a faj yàlla dimbali ko muy faj ay soxla di dimbali ay nit loolu la nit ñi war a xam jàppee ko ni sénégalais la jàppee ko ni seen doom la mais am benn sénégalais bu mel ni waaye yàlla def ko star bu mu ko def. ñii di siisoo ñii di rey seen bopp waaye sëgam yonent bi la sëgam sëgam yonent bi leen seen Tuubaa ñii waale buñ la buñ bu gisee Màkka mu jooy ci Kaaba gi di yàlla. dama ko yërëm yërëm ko rek laa def. keroog ko laa def mu yërëm parce que tamit tey am na ñoo xam bu ñu demee àjjana seen seen xel du dem seen yaay dem seen baax am na ñoo xam faale wuñ dara. mais image bi gars yi tamit filmé nit kuy jooy nga ko filmé loolu rafetlu nga ko daal. kooku da nga koy wax ni ko filmé. mais damay laaj yow en tant que personne. nit yow ngay jooy. Hmm. di ñaanal sa waajur ñu lay filmé aussi tam loolu ndax yow rafetlu nga ko en tant que nit. waaw euh, ñi koy bañ dañoo jënd jooy yi wala. waaw léegi bu jënd jooy yi ñëw wala. ay jooy dañ koy jaay. ay jooy yombul. fi nga bu dee ba tuur xéwal am na lu mu yëg. na nit ñi bàyyi lu ñuy def rek ñuy def di ci ŋaañ nañu topp ba tool leneen. am na ñu war a gën a mën a régler lu dul ay jooyu Wally Seck ca màkk góor jigéen ñaa ngi nii fekk del ci dëkk bi lesbien ñaa ngi nii fekk del ci dëkk bi waxuñu ci yooyu trafiquants yi yow yow kii yi ñu tuddi euh, faramaçon yi yow duñu wax ci yi man ngay gisee maanaam li xew ci àdduna bi ndara yàq Sénégal suñu doom yi yàq ay xale yu ndaw nekk góor jigéen nekk ay lesbien te seen ay te seen bàyyi génn dem wuti apartement nekk ci xale yu ndaw yi nekk ci àll bi def naka su dul noonu bari ba dee yow lijjantiwuñu yooyu ah suñu réew mi doxagul ñu am président bu bees war koo ñaar yàlla yokk ko doole ñuy xool ay yooyu waayu ca màkk di ci di ci wax di ci. mais mais mais daal dañuy bi xeex Omaro Beeg ak Adamo bi wax ñëpp yaakaaroon nañu bu ñëwee ko accepté mais gis nañu euh, euh, bokkaat na ndax ñëwaat ñëwaat na.

li ma sekkal wax mooy waa li mi ngi ma laaj Omaro sekk naa mun naa wax ci Omaro mun naa wax ci waaye mun naa wax ci moom parce que sekkuñu ko xamantewuñu amantewuñu ay numéro duñu waxtaan duñu déggoo duñu gisoo duñu diisoo kon nag man sama yoon nekkul ci ko xam ni moom yoonu nekkul ci man sama nekkul accepté nga ñëwaat ko man damaa moom groupe ba bay accepté leen man may daam seen. mais en tant que xaritu Wally. en tant que xaritu ba ci lan may wax Wally li li li mu nekk ci groupe am boobu Wally mooy boo gérer group am de man sama nekku ci groupe ba de groupe ba lu mu aw ma lu yéene leen jàmm ak avancement ak yokkut ak jubóo mais keneen ku nekk ci àll ba mu naan ay ndax mbër naa dugg ci groupe ba warut sama yoon sama yoon nekk ci de xeex baag yooyu yëpp sama yoon nekk ci de amuñu jot a de mais nag su ma sañoon amul ko ba mu tëdd. dóor ko dóor yi nekk. da nga doon da koo may sax ne tuñ la toj. waaw waroon foog xaale ba jeex. waaw dóor ko dóor yu métti li mu def nit ñi fii ci àdduna bi man de su ma ko man de bu doon man la nit ñi mu def nit ñëpp laa koy def damay boole lépp def ko ko benn yoon tëpp tëpp tëpp tëpp ba dootul génneel sax naan asalaamaaleykum jaan dégg leen ma laaj fi lay amee dootu ko mën a wax xam nga da koy liyaal. daa ko tànn. lu baax na rek nga tàggoo ñuy seetaan. kontaan nañu bu baax a baax yaakaar naa yow. non maa gën a bëgg yàlla jàmm yàgg yàlla ñëpp yàlla ñëpp am jàmm ñu bon yàlla na leen yàlla sëpp ñu baax. ñu baax yàlla gën a baax. ñu am jàmm am gën a am jàmm ñu amul jàmm yàlla may leen jàmm ñu feebar. yàlla may leen. mais bi nga xam te ne moom la ñu def wàllu ci kaso bi. suñu borom génn leen. malade yi suñu borom wéral leen ñi amul xaalis yàlla jox leen xaalis ñi amul soxna yàlla may leen soxna ñi amul jabar mooy soxna ñi amul jëkkër yàlla may ay borom kër jigéen ñi nag li tax ñuy daw ci borom bu jëkkër yi ñi am jëkkër xam nga amul na ñoo xam tey dañu am jabar jigéen toppaat leen li ko war waral mooy borom ñaari tur yi waroon takk ñeneen ñi bàyyi leen fa ñoom bëgg nekk ay jigéen comme ñoom léegi jigéen ñi il fallait que ñu dem topp ay góor ñoo xam dañoo am jamono ba pare looloo indi tey embouteillage boobu waaye nag góor am nga droit am quatre femmes waaye bu ñëpp amee quatre femmes day day tax sa jigéen ñi gën a des kon nag yéen ñi nga xam ay borom ñaari tur ngeen ay waaye jigéen ñi des wëlbu tukkul leen ngeen tuur baat dem takk leen na xale dañuy bëgg borom kër sëy nekk ci kër jaagar jaagar am ay doom. mënu leen fexe ba am doom yéen góor ñi nga xam da ngeen ni da ngeen di bàyyi fee affaire yu góor naan da nekk jigéen doon am doom man ay bàyyi góor góor góor góor la wasin ay loolu fu fu koy waxee. am solo. nga la. culture bi koy xaar ci ci moom. dénk wàllu culture bi. bi kay tënk na lépp ndax artiste lay comme. Euh, euh, artiste solo na de kanam dégg culture bi fi mu ne. Euh, benn femme. benn femme ñeme nga fi benn femme. si femme femme la. nu tudd. Khady Dieng Gaye Khady Dieng Gaye la tudd. moom dénk euh, sport dénk ko jeunesse fu mu dëkk. Khady Khady Khady Khady at yëpp Khady woon nañ ñu indi ñu Khady Khady jàpp ci rek te yàlla tax mhm. lépp lu artiste yi war a am ñu jël ko nga jox leen ko du la wàññi dara parce que sans culture réew mi dafa am fu muy taxaw dañ ci am solo de muy mbëru làmb muy arsi muy jori ak ku mën a doon xool xool koo koy jàppale jàppale ko waxuma nag nga jël xaalis réew mu jox ko <laughs> artiste de wala ngën a ngën man moom bu ñëpp mel ni man barki sëñ Bamba Sénégal dina avancé paak yaakaaruma ci nguur man lu yokk nguur kay waaye lu wàññi nguur ñaanuma ko yàlla suñu borom yàlla na jàmm yàgg Sénégal jërë ngeen jëf kontaan nañ ci yéen jërëjëf ami chers fidèles internautes euh, gis ngeen tey nag daaw seer la na amoon waxtaan bi mu mënoon demee yaakaar naa itam yëkkati na fi ay kàddu yu am am solo jagleel leen ñu seetaan di leen jox dig daje incha allah rabi très prochainement ak beneen invité si là portez-vous bien merci beaucoup.